jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal la raw ay finance sëñ bamba yow la nu jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba doonte day palais présidence sëñ Gabon walla bu France yaa cheikh bamba moom non violence. bamba la woote di jëf ne silence. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dokkeel mbokk yi dellu nañ fas yéene ànd ak yéen ci liggéeyal sëriñ Tuba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul gannaaw Xelkom Maodo Mouride tey ñu ngi fii ci Lagan Lagan nag. di barab bu spécial bu ñu ko tuddee nag xel yëpp day dem ci Serigne Saliou Mbacké yal nañu ko yàlla fayal waaye jàmbaarul islam ji nga xam ne moo ko fi wutu di Serigne Cheikh Mbacké yal na fi yàgg lool te ànd ak wéyil di wéyil liggéey bi boole ko ak lam daan def lagan barab bu spécial la bu ñu tuddee maam Cheikh Issa Dienne seen xel day dem ci lagan waaye bu ñu tuddee nag Serigne Saliou Mbacké xel yëpp day dem ci daaray lagan daaray lagan nag ñu di fi ñëw ci ngóob mu am solo moo xam ne nii daanaka kenn bayatu ko ci Sénégal Serigne Cheikh ko ngir lan waajuram wu tedd wa moo ko ko bàyyee woon te dafa doon dugub joo xam ne moo gën ci dugub yi moo gën it ci doomu aadama ñu koy wax dugubu saaño ñu koy góobee fii nag ci lagan te yaakaar naa ne bëreetul barab boo xam ne nii danañ ko fa bëree sëñ fallu maa ngi wax léegi rek dugubu saaño ji nga xam ne nii moom la ñuy bay fii te muy ndono loo xam ne Serigne Saliou moo ko fi bàyyi woon Serigne Cheikh téye ko ci anam bu mucc ayib mu doon lu néew tey mu yaatu lool ba nit ñi bàyyi ko fu nekk ngir góob ko lan nga ñu mën a wax sëñ Fallu ci barab bi nga xam ne fi li ñu nekk tey di daaray Lagane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi noo ngi leen di nuyu di leen nuyu fii ci daaray lagan di daaray sëriñ Saalihu Mbàkke xaadimu rasuul waaye xam ngeen ne eh, di daaray sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalihu eh, jëwriñ ji fi nekk di sëriñ Ibrahima Khalil Lo feggoo fi itam ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ seex mu sëriñ Saalihu eh, sëriñ Cheikh wax nga dëgg sëriñ Cheikh ñëpp war nañoo ñaan suñu borom gën ko fa yàggal te gën a ak wéram ndax xam nañ ne bu ngeen toppee jataay yi da ngeen gis ne woote woon na ca xelkoom murid yëpp daje fa seex su bari daje fa. Euh, ci diggante daara yi daaru Xuddoos daara yi daaru Salaam daaray tubaa Touba Xelkom daaru Sakkoor daaru Moin euh, ñu liggéey fa liggéey bu am solo loolu doyoon na sëkk ci ab liggéey waaye mu woote waat Touba daaru Salaam nga xamante ne bii ma nga ca euh, Maodo ca Bambuk foofu it gis ngeen ne seex su bare waat nañ fa ñu liggéey fa liggéey bu am solo lépp jëm ci ni sëñ tubaa santaane woon na sartub sëriñ jàjje ba jooy tënkam ba jàng ak julleeg bay joxe ngir yoneen ba Eh, Serigne Cheikh liggéeyaat foofa liggéey bu am solo ca liggéey yooyu may wax yëpp nag amu ci benn bu dul delluwaat ci eh, jullit yi ñu dundee ko ngir yàlla waaye tey jii ñi ngi woote fii ci daaray Lagan Lagan nag nekk ci eh, tund wi nga xamante ne bii moo nekk ci diggante ñii bi ak eh, Mbar ak Mbos ak eh, dëkk yi ko war di daaray Serigne Issa Dieng xam ngeen ne fii Serigne Issa moo fi sanc woon ci jamono ji Serigne Touba nekkee njaareem la sancoon ci fii Serigne Saliou ci ak yaatalam ak xeñtu jeexitali Serigne Touba mu ñëw fii moom itam sanc ci wetu euh, njenne gi nga xamante ne bii soriwut dara muy njenne ak sëriñ Issa Dienne fii di Lagane nga xam ne moom la wax njenne Lagane mu di fi liggéeyal yàlla fii ñu toog di fi liggéey nag li fi nekk moo di euh, ngóobu saaño saaño la ñuy liggéey sëriñ Seex saaño buñ ko wutalee tuuti ak euh, dugub bi suuna lii ci sama baay bi yenu boo xoolee ne ci saaño si gis nga ne nii am na ay ay ay mhm. lii mooy ay garde saaño lii dugub bi dafa gën a néew suukar moom itam moo gën a néew suukar moo gën a yomb waaw mooy loolu mooy dugub bi saañu saañu nag eh, ñaare bu nawet jeexee tàkk ba ba ba ba ba di waaj a jam coocu la saañu di ñore nga xam ne moo tax nga gis ne góoboon nañ suuna sa ca bu yàgg saañu si mi ngi nii loolu moo ko wutale ak eh, dugub suuna dugub bi suuna du am du am du am lii. yomb naa liggéey lool ñaareel bi itam gittaxub saaño dafay sut gittaxub suuna gittaxub saaño mooy gën a kawe maanaam da nga gis ne gitax bi dana mat eh, ay 3 mètres wala 4 mètres bu doon gitaxub suuna gën jaa gudd du ëpp ay 2 mètres 2 mètres 50 loolu wuute la ci diggante dugub bi suuna ak sa joj saaño saaño nag dafa amoon njariñ lool lool ci jamono ju yàgg waaye guddaay gi nga xamante ne bii nawet dana jeex lu yàgg te yàgg moo tax nit ñi daan ko gàttandoo dugub ju gaaw a ñor moo tax ngay indi suuna 3 ak IBV ak yeneen yi ci aju waaye saaño moom mooy li gën mooy dugub ji gën sax mënees na ko wax Serigne Saliou nag fonk ndono ak bañ démb réer moo taxoon mu delloo si waat saaño di ko bay toujours fii ci ci ci ci àllub euh, lagan nga xam ne ñoom at mu jot saaño la ñuy béy boole ko ak ak ak ak ak gerte gi loolu moo tax nga gis nit ñi di ko yanu mu mu bay fi lu yaatu nag bay na fi loo xamante ne bii suñ ko dugaloon ci tool yi suuna yu baree baree baree bani dana jeexal tuuri tool yi suuna yooyu liggéey boobu nga gis nag eh, mbooleem njabootu Serigne Touba gi ñëpp nga gis fi seen dali waaye gis nga itam ku mel ne eh, Alaaji Samuel Sarr nga xam ne daara ji ci jamonoy Serigne Saliou la tànnoon def ko muy daaraam nga xam ne lépp yëmuma ci liggéey bu ñu fiy liggéey ci suuf si waaye biir kër geeg donga yeeg yi ci aju lépp lu ñu fiy def day jàpp ne loolu moo a am nga xam yu baree bari ci biir kër gi na mu ko yi ci moo tax at mu jot Serigne Cheikh di ko defaat jëwriñi lagan ndax noonu la ko Serigne Saliou defoon loolu mooy li nga xamante ni ci lañ nekk nii yaakaar naa ne tool yi ni ñu ko gisee gaa ñi financé nañ Eh, démb ci ajuma ji am nañu yenn si démb si ci ajuma ji ñu ngi fi tey ci gaaw bi jort nañ ne lool suba ci dimanche ji mën lépp dana mën a sotti waaye loolu li muy tegte rek njàmbaaruk Serigne Seex ak eh, Serigne Touba li mu woote woon ci bu njëkk mooy loolu mu waxoon ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam sahaaba ya jaayante woon ak moom dañ leen laaj seen alal laaj leen seen deret fa saasa sëñ Ablaat nag wax ne ñun murit yi suñu alal lañu laaj ak suñu ñaq kon suñu ñaq waruñu ko am nañ tawfeex bi ñu laajee aw ñaq dong yam ci ndax bu ñu laajoon deret dañ koy joxe waaye naa aw ñaq lañ ñu laaj nag ñaq wi wërta wërta wërta fendi loolu moo tax nga gis gone yu mel nii yanu eh, yanu yi ñu yanu di dox lu mat ab kilomètre ngir di ko yóbbu ci jaag ba loolu mooy liggéey bi nga xamante ni bi Serigne Cheikh dana ko woote at mu jot li muy liggéeyub njariñ ndax Serigne Touba noonu na in waqdi hawaaij allazina daamu fii xidmati wa hablahum maaramo xidma mooy lii ñuy def in allazina saarahoo fii xidmati falahumu diyaar wasal jannati ñi nga xam ne ñoo gaaw wuy si sama woote bii ca muy liggéeyal yàlla ñooñu bu ëllëgee bu ñu faatoo àjjana lañuy tàbbi loolu moo tax nga gis murid yi fu nekk murid dafa jógee aca murid la nga xamante ni amut amut lenn tëdd ci àll bi amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw si wax na yaa ngi ni di yu mag ñaa ngi yenu ñoom ñëpp benn benn baat rek lañ fi wut mooy sëñ bi nee na jërë ngeen jëf jërë ngeen i jëfi sëñ sëñ mu damante na woon gàtt na loolu waaye ku jëfut kon du ko dégg kon dañuy ànd ak suñu caméraman tabbi ci biir liggéey bi su ko defee ñu wan leen dal yi ak liggéeyin wi ak li nga xamante ne bii sëriñ si jërëjëf liggéey fii ci àll bi sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfe xaadimu rasool jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance sëriñ bamba yow la jox sunu confiance jaajëfati xaadimu rasool am la moo gën am ay licence bamba weddi laa doy na ñàkk chance sëñ moroom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laa nu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba Côte walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool cheikh bamba moom non violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ bamba moo tax murit amul tendance nañu sant xaadim rasool sag wàllu raw na ambulance. bamba. dégg raw na fréquence. sëñ bamba. njaare ma doonoon sa résidence. surveiller ci xaadim rasool. tubaab yi ñoom dañ la daan menace. bamba. buur yi fit ne daan la offense. sëñ wuloo woon benn défense. budul yoneen xaadim rasool grand pasam benn distance tubaab ya def nañ fa ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool cay sëriñ Tuubaa grand pasam benn distance tubaab ya def nañ fa ñoom ñépp toog di assistance ngir bëggalal xaadim rasool lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence sëñ bamba océan bële ku ñu fa relance jagabaw nga xam ne doo xaadim rasool yoneen bi mooy sa référence Bamba amoo defet yow bay laaj revanche Sëñ santati nañ la sa souciance naan jërëjëf Xaadim Rasuul Seex Bamba yaay suñ confidence Bamba muritoo ku woote gis sa présence fu mënti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ la woote du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa woote conférence sëriñ bamba bu toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak bamba nga leen rawoon yaay croyance sëriñ Bamba sa mbir dee mënu koo si. liggéeyal sëriñ Touba moom amul âge dégg nga xam ngeen ne na ngeen def soxna yi. ñaa ngi fi. na ngeen tudd yow na tudd. Ndeye Fall. Lagan. xanaa jàpp si liggéey sëñ bi rek. maa ngi fi. maa xujj Ndiaye. maa man. <laughs> kenn daa yor loxo. Ah, loxo. kay kay moom loxo bi day métti. Ah. waaw loxo bi day métti waaye terewul gis ngeen ko saan euh, mu ngi ñëw di liggéeyal Serigne Touba loo ci fas fi ñu toll nii. ñaan yàlla sama loxo bi tane. amiin. Touba la bay bi waaw. waaw maanaam daal di rafetlu liggéey bi daal ñu ñu fas yéene ñu ñu àndal daal ñu ngi ko bu baax a baax di ñaan daal lu ci saa def rek saa borom ko ful. yokk wër bu baax a baax a baax. non sori na loolu moom mu ngi bàyyi ko ca kaw koy sori na loolu instant bi waaw man ñëw naa fi ay ci suba rek ay midi yooyu rek wax dëgg xaw na maa si maa naa yàgg si nger maa ngi bàyyi ko Louga. Louga nga jógee koo àndal. waa daara naa àndal yow Moussa Cissé jóge bu Touba nag boori Touba Pout waaw fan la jógee waaw waaw liggéey si waaw liggéey moom wax dëgg yàlla allah moom nee na trop tamit kawe na barki maam Serap waaw di tub wér-wér nag <laughs> xaw a ñàkk mën a waxee rek waaw waaye moom kontaan nañ trop si liggéey bi kontaan nañ trop billaahi waaw leen sant baa baa nag jaayef murid moo amul lu ndigal rek ndigal jóge Fall maa ngi jóge Daaru Karim waaw foofu laa jóge di barkeelu si liggéey bi teel waa Sa Jenn laa waaw ñu ngi siyaar baax waaw waaw ci laa bokk ci laa bu baax ci laa bokk baay soo maam lépp jenn la moo tax il faut ma ñëw ci liggéey bi jërëjëf sonn nañu la. Daba Diène laa tudd dëkk dëkk Mangasé Baye Dame waaw di taalibe sëñ Yuusu Diène moom soxna Mbàkke moom sëñ Fallu maa ko ñaan nag lim ko yéene bi yeggal ci yoon wi moom sëñ Saalu Mbàkke da ko yar ba tax sëñ Cheikh di ko jox liggéey bi. waaye noo ngi sant. maa ngi bàyyi ko Touba Darou Manane tali bu bees waaw maa ngi tudd Cheikh Mbaye waaw ñoo ngi ñaan lépp lu fi waaye fas rek ah, yàlla defal ko ko ni mu nu mu kawee njortam waaw ñoo ngi ñoo ngi sant bu baax a baax nag. maa ngi tudd Ndiol ko di toolu Cheikh Bassirou Diène ñu bàyyi suñu lépp ñëw ci liggéeyu sëñ bi rek di ñaan suñu borom lu fi waay aaju fa indi rek yàlla na ko yàlla suñu Tuubaa faj yàlla na yàlla indi xéwal yi dàq rek yëpp dara jee sëñ Tuubaa Mbàkke kenn ku ci ne yaa xam la nga bëgg yàlla na ko yàlla ak borom dëkk bi defal Cheikh Bamba yaay sunu assurance say ndimbal raw ay finance Sëñ Bamba yow jox sunu confiance maas jaajëfati xaadim am la moo gën am mm. ay licence bamba weddi doy na ñàkk chance sëñ bamba amoo morom doo concurrence mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience. bamba donte day palais présidence. bamba Gabon wala bu France. ndax li ma gis suñu Saalum. yaa nu gënal xaadim rasool man moom laa jëbal. Cheikh Bamba moom non violence. mais macha ba ma commencé ñëw fii demal. la woote di jëf ne silence. sëñ bamba. am naa mbett lool kontaan naa si lool. loolu tax na sama doom yi indi naa ko fi ak sama jarbaat yi juróom-ñaar doom sama donc juróom-ñaar doom ñu ngi fii ñu ngi si daara si daara Lagane fii di jànk ak kaamil keneen ñi wàcc nañ ñeneen ñu ngi waaji kon de am naa si kontaan lool lool lool am naa si mbéte waa maa teewul waa Casamance ak waa Kafunti yëpp kon maa ngi ñoom yëpp di sant di la gërëm di sant sin Saalu di sant si see Saalu ak waa këram yi di sant si waa kër Sin Touba sag wàllu raw na ambulance bamba sag dégg raw na fréquence sëñ ma doonoon sa résidence surveiller cey xaadim rasool tubaab yi ñoom dañ la daan menace bamba buur yi fi newoon daan la offense sëñ bamba yorewuloon benn défense budul yónneen xaadim rasool grand basam benn distance tubaab ya def nañ ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool ñoom ñépp toog di assistance ngir bëggal Xaadimu Rasuul lii rekk doy na prudence Bamba seen yéene mooy xañ la cadence Sëñ Bamba océan bële ku ñu fa relance ca gabam nga xam ne doo Xaadimu Rasuul yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ bamba santati nañ la sa souciance naan jërëjëf xaadim seex bamba yaay suñ confidence bamba muridoo raw na alliance sëñ woote gis présence mënti doon xaadim rasool say kër mooy suñuy agence bamba say xasidaay suñ opulence sëñ bamba màggal la du ambiance borom safar xamuñu sa morom xaadim rasool yaay sunu autosuffisance bamba yow yaa jar woote conférence sëriñ bamba bu kenn toog naan day patience ngir bamba mooy doon nay rasool ngir xut buy yaa caas ak bamba nga leen rawoon yaay croyance sëñ Bamba sa mbir dee xel mënu koo science. Euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, surtout di sant yàlla suñu boroom sant suñu sant sëñ Touba sant sëñ Saliou Mbacké sant sëñ Cheikh parce que ñu ñu doon euh, oo ñëpp si liggéey bi te liggéey bi liggéey bu rëy la. chaque année ñu def ko ñoom ñëpp uwu si nañu ñu ngi see sant sëñ bi parce que ñun dañ ko def farata euh, Lagane dañ ko def farata euh, liggéeyu sëñ Saliou la sëñ Cheikh dénkuñu ko euh, ñu si ñu si yeesalu chaque année mais chaque année rek nit yi dañuy gën a bari li si sant sëñ Touba vraiment liggéey bi rafet na depuis tey suba nit yaa ngi fi depuis tey suba. ñoom ñu gis ñu ngi si jaag bi incha allah fileeg tey su weesoo suba si suba lépp dina noppi liggéey bi dina noppi parce que mbooloo bi bari na te vraiment euh, at bi moom euh, dugub bi rafet na ñu ngi see sant sëñ bi rek euh, di sant tamit ñi nga xam ne jóge nañ fu nekk si Sénégal ak camionneurs yi nga xam ne joxe nañu seen ay oto ak ñi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp si liggéey bi vraiment ñu ngi koy ñu ngi leen di si sant sant ñi nekk fii di def ay deux kilomètres di indi dugub bi di di indi dugub saañu bi ñu ngi voilà euh, ñu ngi see sant vraiment waa Kër Cheikh Issa jën tamit bu baax a baax nga xam ne ñoom ñoom ñun dañ leen di jàppale rek ngir sëñ Cheikh Cheikh Saliou euh, ñu ngi liggéey sëñ Saliou wante ñoom la ñuy gën a jàppale si liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax sëñ Youssou ak ak ak ak ak kilifaam yi si si liggéey bi sëñ bi day xam nga keroog euh, bu sëñ bu mag bi joxe sëñ Issa euh, euh, Lagaan dafa noon maa ngi lay dénk lu gën ñun nag sëñ bi fi dëgg la de ba ñuy ba ñuy ba ñuy tàmbali di ñëw fii Lagaan lu ndaw la woon mais sëñ bi yaatal ko sa yaatal ko ba tey mu doon lu mu doon tey ñu ngi see sant bu baax daara bu rëy la ay xale ay gune ñu ngi fay jàng alxuraan ñu ngi fee tabax euh, ñu ngi fee siw gis naan ñu ngi defar léegi pépinière di defar yeneen euh, yeneen yeneen anam si si si daara bi nga xam ne day dundal daara bi ak euh, verger bi nga xam ne moom la ñuy defar ak jumaa ji ak gerte bi yëpp ah ñu ngi see sant daal cest à di te ñun ñu ngi see ànd liggéey ak seen cheikh ànd ak liggéey yeneen jëwrin yi c'est-à-dire man jëwrin laa rek ma dafa am yeneen jëwrin Sall Jaxate jëwrin la Euh, euh, sëñ Youssou Dieng bi nga xam ne moom si sëñ Saliou la la la bàyyi euh, si si moom la nekkoon jëwrin la sëñ xalil jëwrin la ak sëñ sëñ Balla Jaxate jëwrin la dafa am ay jëwrin yi nga xam ne moom lañ sañ man nag damay ànd ak ñoom rek am si kontante si ndigalu sëñ Cheikh ñu leen di jàppale pour jàppale si si si liggéey bi léegi nag ñun nag ñoo ñëpp. jëwriñ yooyu yëpp dañoo am benn jëwriñ bu mag kooku mooy suñ jëwriñ mooy sëñ Saliou Diouroune euh, bu bu bu sëñ Abdou Lahad xool ku xool euh, li li li sëñ Saliou def euh, sëñ Cheikh yokku ko te si yëpp si agriculture la nga xam ne développement si lii lañ si lii lay jiitoo soo defalee agriculture defar élevage yaa ngi si développement te li ñuy sëñ Cheikh gannaaw nekk si si si l'islam nekk si jàngale tamit euh, euh, alxuraan si loolu la nekk nekk si ay toolam di développer euh, développement boobu di ak jaamu yàlla di si di si def na ba jaamu yàlla te loolu nag lu am solo la te Euh, développement dafa jaar si agriculture soo soo defaree agriculture rek xamal ne mooy sa socle développement dëkk boo dem nag muy États-Unis muy fu nekk modèle boobu nag ñun nag xooluñu ko États-Unis xam nga si kan lañ ko xoolee sëñ Saliou Mbacké donc ñun xam nañ ne sëñ bi euh, soo xoolee lii ñuy def yëpp mooy dundal suñu ay daara du daara bi xel comme a ngi fii ak Cheikh Amar chaque année loolu loolu yëpp mooy mooy mooy dundal suñu ay ay daara te moo tax ñun mii nga xam ne ay jëwriñ lañu euh, ay taalibe lañu d'abord euh, sëñ bi def ñu jëwriñ dañ siy am kontante ba pare am fierte pour liggéeyal sëñ bi pour nga xam ne mu doon modèle pour ñeneen tamit parce que soo gisee ñeneen sëriñ si ak ñeneen kilifa aada u kilifa diine siñ defee lu sëñ bi di def rek lay Sénégal dina avancer benn Samuel moo am uh-huh. Euh, Samuel Mouride Mouride Sadikh taalibe sëñ te loolu rek moo si am lu si des yëpp da ngay gis que benn Samuel mu sol cravate wante loo gis rek ak foo ko gisee rek noo ko jàppande rek kii kii nekk suñu xol nii te ñuy sol jaan sëñ Saliou rek. am la moo gën am ay licence bamba doy na ñàkk chance sëñ bamba amoo morom doo mbërum yàllay xaadim rasool wuy si laanu gënal audience bamba donte day palais présidence sëñ bamba Côte Gabon walla bu France yaa nu gënal xaadim rasool Cheikh Bamba moom non violence bamba la woote di jëf ne silence sëñ Bamba moo tax murit amul tendance nañu sant Xaadimu Rasuul sag wàllu raw na am bamba sag dégg raw na fréquence sëñ bamba njaare ma doonoon sa résidence naa bun sant yàlla ñu ngi julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di kàddu yi nag sëñ Fallou xanaa kàddu yi sant rek moom lay doon ñi ngi ñaanal sunu kilifa gi sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou suñu borom yàggal ko fi te dolli koo wéral te liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Touba nga xam ne sëriñ Saliou ko sosoon suñu borom kattanal ko ba mu gën koo jëmee ca kanam borom mot li yéenem ñi ngi yëkkati sunu kaddu nag ci turu Cheikh Abdou Latif nga xam ne mooy xalifab Cheikh Issa nga xam ne sëriñ bi yabaloon nañu bi ñu tàmbali liggéey bi ñu dem yëgal ko ko mu joxe ci ndigal ginnaaw bi ñëw gis Serigne Soxna bu Jenn mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Amadou Lamine ak Serigne mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Naar moom itam mu taxaw ci taxawaay bu rafet mbokk yi yëpp ñëw nañu ci liggéey bi kon kàddu yi li ci jiitu mooy kàddu sant taalibe yi seen teewaay ak bàyyi gin bàyyi seen i itte rawatina dëkkandoo yi ni ñu wootee woon woote bi wuy si nañu te alxuraan dafa wax ne istajibu lillahi wa li rasuli isa daakum kon dëppoo nañoo li suñu borom santaane mooy woo nañ leen wuy si nañu woote bi nag dara warulu ko lu may liggéeyal yàlla rek ndax tool la boo xam ne gone yu ko liggéey ba mu rafete nii mën nañ koo yéwénal waaye nag sëriñ bi dafa yegg ci tool bi ñëpp mën cee jariñu muy yé muy yéenañ jariñ li jaam yëpp moo tax mu yaatal ko te lépp képp kuy jariñ ko ne nag ci say dëkkandoo ngay tàmbalee te ku ne xam na ni sëriñ Saliou bu ñëwee ci barab bii euh, kilifa yam fekk si woon Cheikh Issa ci jiitu te ñun ñëpp mën nañ ci seere ndax dégg nañ ci kàddoom mu ne li ma xam ci Serigne Touba li ci ëpp ci Cheikh Issa laa ko xamee loolu man wax na ma ko ma dégg li ma xam ci Serigne Touba li ëpp ci Cheikh Issa laa ndax daa am lu ci xamoon lu bari te yàgg fi ginnaaw moo tax ma daan dem ci moom ngir sàkk lu ma xam ci moom kon nag defoon na ko wéttal defoon na ko kilifa te itam njabootu boppam gi itam gis nañ bi bi bi suñu seer toogee toogaay Serigne Touba eh, ni ñu ko àndee ak moom. tàngam luñ ko ci lenn jàppale ko ci liggéey ba sëñ Saliou seere leen ay ngërëm yu bare bëri yoo xam ne ñun yëpp liggéey bi nag bi nga ñëwee fekk nga sëñ daam yi nga fi fekk muy sunu wayjur may xam leen nag mboo mbokki njende yi kenn desut da ngeen fekk ñeneen ñi sax nekk ci tool yi ci des nekk ci ngarle ak nekk ci liggéey rek waaye bu ñëw ci ginnaaw tur sax da ngeen fekk ñëpp kon ñi ngi seereen ñoom ñëpp ñëw nañu ànd nañu ñun liggéey bi te lépp nag ngir ngir mottali cër bii nu sëñ Saliou joxoon rek la kon nag ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen ñaanal ci daraje seen maam Cheikh Issa suñu borom gën leen a taxaw jëwriñ ji ngeen àndal nag moom mooy mooy Samuel itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax doomi xol la ci sëriñ bi te ku ne xam na digganteem ak sëriñ Saliou ci bi sëñ bi nekk ni mu ko safa woon ak ni ko sëñ bi bëgge woon ginnaawam tam mu matal kóllëre googu ak sëriñ seex jàpp ko lool féetewoo daara ji itam di wax ni lépp lu ñu fiy def boo ko ci kenn man moo ci jiitu kon nag loola baatub jëriñ bu ko sëñ bi féetale ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko gën a man suñu borom kattanal ko ba yéene ji mu fi am lépp mu mën koo mën koo mottali kon kàddu yi daal kàddu yi sant la ak kàddu yi ngërëm cant yi nag bu ñu jiitalee kilifa yi taalibe yi rek ñoom ñoo ciy tegu ndax benn wootee suba ba léegi ñoom ñëpp bàyyi nañu seen kër bàyyi seen i ñëw ci liggéey bi dangeen ngeen fekk sax mbooloo mépp nekk ci tool yi waaye ñun wowoon daal ñëpp wuy si nañu kenn desul jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne sëriñ jërëjëfati Serigne Saliou. jërëjëfati Serigne Saliou. ñu ngi lay sant bu baax di sant ku tedd ki ci dimbali gim nu dimbali ba daaw ñu teewoon ko jataay bii ñu amaloon ko ren yàlla dogal ñu amaat ko yàlla na sax te yàgg liggéey bi nag comme niñ ko gisa rek moom ñun moom daanaka suñ suñ roo yi lañ joxe. bu ñu joxewoon suñu jëmm yi sax suñ jëmm yi ma médecin yi lañ koy jox waaye suñu ruu gi sëriñ Saaliw lañ ko jox jox gi ñu jox ku tedd gi nag moo tax te ruu mooy doxal lépp moo tax moomatul suñ bopp dara moo waral saa yu suñ seex wootee moom mi fi nekkal maanaam dañu dul amati benn bëgg-bëgg bu dul jëfe ndigalal sëriñ bi loolu moo tax at mu ne rek muy lagan muy xel koom xay na ren sax xel xelkom bi ma fekk France nekkuma fi woon waaye teewut liggéeyub sëñ bi kenn da cee doonul dara moo boo doon xool sama ginnaaw sax daa mel ci la mbir mi gën a doxee sama teewaay ngir laan ngir du kenn sëñ bi rek ah. lagan ji nag yàlla dogal mu fekk ma fi alhamdulilah ñu ànd ak mbokki taalibe nañ ko daan defee wuy si sëriñ Cheikh nga xam ne moo fi doon Serigne Saliou comme ni yoonu murid doxee rek nit ku nekk da am kilifa. waaw ànd koog jëwriñu tedd yi rek fas yéene liggéeyal Serigne Saliou Mbacke. Ah, di ñaan di ñaan nag sax dàkk rek ci ndigal ndax ñu ndigal moo ñuy dundal daanaka lu ñuy jëfandikoo loo xam ne mën nañoo jariñ dëgg-dëgg ci kaw suuf mooy mooy ndigal rek ndigal sëriñ Saliou képp waaw bu ñu amee benn sikk daal mooy sax dàkk ci jëfe ndigal yi waaw te it loolu la ñuy ñaan ñu maanaam sëñ bi dimbali nu ci euh, ñu ñu sax ci di ko di ko jëfee ba faaw rek waaw ndax ab murit moom daanaka moom booy xool constitution yoonu murit Euh, daanaka niñ ko mën a misaale man dama koy faral tuddee constitution yoonu murit mooy bi Sëriñ Tuubaa di wax melokaan yoonu murit mooy sifaatu sadiqil murit euh, sifaatu sadiqil murit yi bixtisaar arbaatun nazamtuha xaw faxtiraar ba mu ci njëkkali mooy asidq asidq fi mahabbati cheikh te sidq dafa bokk ci euh, dafa nekk deuxième point bi yàlla cité gaayam yi mina nabiyyiina dañu was siddiqiina doog ni was suhadaa te suhadaa wu ñëpp xam na ni maanaam borom yi borom yàlla jox na leen cër ndax shahid ci joxe sa bakkan joxe sa alal joxe sa lépp dara gënu ko kawe waaye bi suñu borom tudd gaayam yi bi mu limee anbiya yi da caa teg siddiquna yi moo tax Sëriñ bi muy lim itam euh, maanaam melakaan wi tax a doon am murit ah, da dañ ne as siddiqu daal ni fii mahabbati cheikh mahabba nag mooy bëgg moom moo lay poussé ci bu lay digal dara boo ko day neex bëgg gi nga bëgg loolu moo waral muy neex ci yow sa roo di ko yëg loolu moo waral fu nu Serigne Cheikh joxe ndigal dañuy jàpp ni Serigne Saliou woon jox ndigal jël suñu tànk teg ko ci ndigalal Serigne seex loolu bañ a sikk sàkka ni réeroo na ak Serigne Saliou Serigne Saliou ñu bañ a sikk sàkka ni doonoon na Serigne Touba ba jeex tàkk ñu bañ a sikk sàkka ni Serigne mooy jëwriñu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu gëm nag ni Rasulullah yàlla ko yónni ci ñun muy sirk bu leer naññ boo xam ne ku ko wàcc rek nekkoo ci dara waaw loolu nag ci la ñu nekk te ci la ñu fas sax euh, tuur suñu ñaq ci tooli Serigne Saliou ànd ko jëwriñ yu tedd yi nga xam ni seen lépp joxe nañ ko ba ba faw rek te di sàkk ngeen ñaaral na ko yéen ñi nga xam ni maanaam fu baax fa ne a ngi fa. waaw moom kay taarkaala xéewal yi moom moom kay moom daanaka foo ko takk rek weesu na ko ndax moom noonu la war a deme sax Serigne Saliou ku ko xam bu nee bernde rek sëñ bi tax ñu di ko wax maanaam foo dégg ci yoonu murid ñu ni bernde ku tudd baatu bernde sa xel danañ yar ci Serigne Saliou moo waral ñaare bu ñuy ñëw ci barab bu mel nii dañuy fàggandiku. fàggandiku xéwal goo xam ni bëri nañ ñu maanaam dara du fi naqari kenn xam nga dara gënt a garaaw ñëw tool Serigne Saliou di di jàmbat lenn kenn wut jàmbat dara ñëpp dañu war a bëgg moo tax ñuy bëgg ku ne la la fi indi rek nga gis ko tey dabu tey dabu ngërëmal Serigne Saliou. ñu ngi leen di nuyu kenn ko ci seen turam ak santam di di ndokkeel di ñaanal itam Serigne Mountakha Mbacké Bachir Mbacké moom sax yàgg fi lool. di ñaanal itam Serigne Cheikh mi nga xamante ne moom fi doog Serigne Saliou nga xam ne moo waral liggéey bi ñu ñaanal suñu borom yi nga xam ne ah, na mooy taalibe yi ndax ci ci ci nit mooy mooy taalibe ñu àndal kon nag ñu ngi sant mboolem taalibe yoo xam ne ñoo àndal ñun bi liggéey bi liggéey bi xam ni moom liggéey Serigne Touba ndax si tuwaa xam bi xidmati aw aw bi aw te ñoom yëpp xidma alxubba mu njëkk ndax bëgg bu amul dara lu am ndax daf ne lawlaal xawaaya lam la xalaataleen wala araxte di sikri bani wal alami bu toll ak bànneex kon dina kon ronko ju takk lu ñaari pàkk leex ba teel a nelaw ci nga tudd gàncax bari alam mel ne nga ne nga ne daxal ga ak guy rek nit jooy ba rek cekk loolu bànneex ko waral ak mbëgg yel te loolu Sëñ Tuubaa ko waral muy taalibe yi nga xam ne ñoom ñu àndal ñu buñ dul wooyee ci Sëñ ñu fekk suñu ca la sunu maam Cheikh Rayba Sar Ndiaye dafa am lu ko Sëriñ Tuubaa waxoon dafa ne ko fa ala sirqi wal ixlaas mu tey lan siwul jëf kaytal moo sa yaakaar ndax sirqu ak ixlaas la ko wax dëgg ak ak ak sell toll suñu boole ko moom da ko fi siwul jëri lu lu feeñ ak lu nëbbu kaytal moo sa yaakaar ngay borom may waaye may nekkul ay may may jikko la mu ko sallallahu alayhi wasallam ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ko tagg ci jikko waaye rek laa xuluq na asim ndax loolu mooy euh, xuluq saaliw àll si yu may suuf sax bay naas mooy jikko rafet mooy ràññale sa jikko yooyu la ko sëñ Tuubaa wax comme ni ko sëñ Tuubaa waxee rek sallallahu alayhi wa sallam labista saabal majdi wal faddi wala ala wa fikka bi axlaaq maa xajjasul ak kawe wa fikka nekk ci yow al axlaaq jikko yow maa wax kul la képp yax ma lottal na ku jikko yi nekk yow na ku ne boobu yolu sallallahu loola la Cheikh Ibrahima Sarr doon ci kër Sëriñ Tuubaa ndax Serigne Touba moo donn yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf kon mboolem ñu ko toppoon itam noonu la noonu la mën a mel ñu ngi sant itam yoo xam ne teew nañ fi ànd ak ñun ci liggéey bi fekk na fi xaar bi Sarr mi dëkkoon Loka sëñ Moussa Sarr mi nga xam ne itam maamam ak Cheikh Rabi Sarr ñu àndoon ak sëñ Mor Sey mi nga xam ne sëñ Mor Jaar la tërbeyu ba mu ànd ak ñëw ci liggéey bi ak Ousmane Lu mi nga xam ne tey moo nekk yàlla dogal moo nekk suñu chef de village ci Kortiel ak Abdou Salam mi nga xam ne mi nga bokk ci waa kër Maam Cheikh Anta ak sëriñ Abdou Samaka

waaw fii ngeen fii ngeen nu fekk nii de day barab boo xam ne bi nun mi fi nekk indi wuñ suñu bopp dañ ñoo fee indi ki nu fi indeet ci biir faag gu nu sëñ Tuubaa fàggul lanu dimbalee ba indi nu fi ndax liggéeyub sëñ Seexum sëñ Saaliwu de mooy liggéeyub sëriñ Tuubaa ndax li da koo sofa ci liggéeyub koo xam ne liggéeyub sëñ Tuubaa la sofan la jëlan yoralan ko boppam taawulan ko boppam yore ko na ko sëñ ba bëggee sëriñ Cheikh yàlla dogal mu teg ko ci loxoy sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh yore na ko yore ko na ko sëriñ ba Saliou yore woon si sëriñ Saliou na ko sëriñ Touba yore woon rek la ko yore woon kon nag ñun mii nga xam ne baaxee na nag boole ñu ci biirub liggéeyam di du boole ci liggéey bi liggéey bi sëriñ Touba gërëm képp koo xam ne kala ca boole boole na la ca kala ca boole da nga ko amee lu cant fii nga nu fekk na barabu santukaay la. asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di jaare am kontaan ci bi ñun ñu ngi dëkk Touba Ndorong pencum sëñ Basirou lañ fa jógoon ñëw ci liggéeyu Serigne Saliou bi nga xam ne yàgg nañ di ci ñëw am fi ay doom yu fiy jànge ñuy soññi bépp murit kenn ku nekk war naa gis lu mel nii te war cee mën a soññee te ñu ngi ñaan képp ku déggati lu mel nii ngalla bu ko tànqamlu loo mën a def na nga jóg ñëw barkeelu ci liggéey bi xam ne yokkute rek la ku ci yéex wala nga xef ci lu mel ni tuuti rek danga nga ñàkk lu lu bëree bëri ñun ñii de daanaka ni ñuy wax xaw nañoo tardé sax ndax liñ fi jot a fekkee kon nag ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba ci barke Serigne Saliou ci barke Serigne Cheikh yàlla nañu fi bàyyil ba ci kanam kanam te ñu ni yàlla mooy ay kàttan ñu fi ñëwee ñu am xéwal yu yaatu ñëw di ko def ci xam lagan gi Grand tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di assistance ngir bëgg lor xaadim rasool grand basam benn distance tubaab ya def nañ fa séquence ñoom ñëpp toog di muy barab bu tedd bi ñu taxaw muy lagan kañ la ko sëriñ Saalihu sanci mi ngi ko sanci 1976 ci la ko sanc moom barab bii di fi liggéeyal Serigne Touba di fi yar ak di jàngale ak di toq ci liggéey xeñtu ce itam ci barab bii kaddu Serigne Touba gum ko junjoon ndax dañuy faral di wax te mu wóor lool ne Serigne Touba lu mu tudd bokkut ak tudd lu mu dégg bëggut barab boobu taxoon na sanc gi ko sanc moom Serigne Saliou mu jox ko wàccuwaay bu rëy moom barab bii ba am na lu ma ci wax ci làmmiñu boppam loo xam ne du nu ko sosal wax na ma ne barab bii suuf si dama koy barkeeloo muy lagal mm, ne ma sëriñ Touba moo fi yabaloon sëriñ Issa Diène mm, kero li na ba wax ne ma sëriñ bi dafa waxoon mag ñi ne leen su ngeen dee sanc bu leen ma féete penku da ngeen may féete sowwu walla ngeen féete ma ndeyjoor wala wetu càmmoñ gi daal di ñu bari ci mag ñi ci wetu soow gi lañ jëmoon muy sëñ Mandumbe ñoom ne ma gis nga maam Thierno ni mu ko dëkkalee ci wetu càmmoñ muy Daaru Mooti ne ma sëriñ Issa bi ko sëriñ bi di wutloo barab bu mu mën a liggéey la yàlla di fa yar ak di di liggéey ak di jaamu yàlla ci wetu ndeyjoor gi la ko yabaloon wuti na dem na si barab yu bari moom Cheikh Issa ba mu delloo muy nettali sëriñ bi barab ya mu jaar tudd na sëriñ bi ay barab yu bari Serigne Saliou wax ne Serigne Issa lagan la mujjee tudd daa ne def ko fàtte ne ko ah barab bu ñuy wax lagan nit kër jaaroon naa fa nee na Serigne ne ko hakaza foofu mooy barab ba daal ne ma looloo tax kàddu Serigne Touba googu laay barkeeloo ci barab kon barab bu tedd la mu jox ko wàccuwaay lool waaye nag dafa liggéeyal yàlla dafa liggéeyal Serigne Touba ndax néew na mag moo xam ne Serigne Saliou yar na ko ba noppi ci moom te jaarale ko ci barab bii kon barke boobu mu wax na dama koy barkeeloo suuf sa dama koy barke boobu fàggul na ko lu baree baree bari ci ñi mu ñu bëree bëri jaar nañ ci barab bii kon barab bu tedd la mu doon fi liggéey di fi jaamu yàlla di fi di fi di fi di fi di fi di fi yar loolu noonu la nekk woon ci barab bii 1976 daal su ma juumut ci lañ sañ ci barab bii liggéey Sëñ Tuubaa dafa amut tànki ginnaaw tànki kanam la am lim fi bàyyi woon ci lim lu ko ëpp mi fi te lam fi doon def dara soppikuwu ci mm, ndax yar la fi doon def toqi ak jàngale loolu itam moom mooy liggéey bi nga xam ne wéyal nañ ko man na maa wax ne mbooloo mi daanaka bi mu fiy jógee li mu fi bàyyi woon lu toolaat noonu mi ngi ci biir mbooloo mi fi mu ne ba fii may eh, taxaw di wax ak yow ñetti téeméer yi fi nekk teg teg na ñetti téeméer ak ñaar fukk ak lu teg mi ngi fi kon eh, loola mbooloo mi ni mu yokkoo itam nag taxul dara sotti ko ci la sëriñ Saliou doon def waaw ca ca lam leen seen i seen i koddaay seenu mbaj lépp sëriñ Cheikh nga koy taxaw ba barab bii damay wax ne sëriñ Cheikh fi mu ko jëlee sama digg yàlla ak fam ko fam ko yeggale su fekkoon ne sëriñ Saliou fukk la fi bàyyi woon ci barab bi ci taar sëriñ Cheikh yóbbu na ko ci téeméer te lépp fi la ma fi la ma fekk bu fekkee ne ci benn la ko bàyyi woon yóbbu ko téeméer wóor na ma wóoral yàlla ne lim ci lim ci def ci ci ci ñàkk boppam ci alalam rusees na ko tudd ndax boo ko dee xool day mel ne mm, waaye nag ku diine ku diine ku diine ñor te diine jaral la lu ne jaral na la waaye lim ci def sax yow boo ko boo ko dee xalaat da ngay am kersa yow ak it ak it li ci ciy génn ak lim ciy def dafa dafa dafa sorante kon nga xam ne waar wa waajuram ne woon di fa liggéeyal yàlla di fa liggéeyal sëñ Tuubaa ma nga ci waar woowee te te nam nam na ko na ko waajuram yore woon ak barab bii barke boobu Serigne Saliou doon wax naan damay barkeeloo barab ba loolu feeñ na ci jëmmi Serigne Cheikh mi. xéwal yi dong yi di xéwloo. mel na mm-hmm. loolu it am na coppitiku ba ci seen colaay yi yenn saa yi ma mm-hmm. na am na taxawaay bu ci sëñ bi def bu bu bu wér a wér a wér ndax mm, nit ku ne uh, boo yokkut danga ngaa te te jàmbaar buñ ko buñ ko bàyyee bi yan du du teqi mukk ci yan ba di delloowaat ci suuf. waxtu wu ne day jël gën a jël ci yen ba di gën a di gën a yenu loolu ko ne njàmbaru sëñ si xam nañu lu ci ne lu ci mi ngi ciy def lu kawe njort lu sëriñ Saliou doon def ci paj mi ci koddaay mi ak ci soññe bi ak ci ak ci ak ci taxawaay yi. ci ci jëmmi barab bi lépp dajee feeñ wàllu liggéey bi bu fekkoon ne moom itam sëriñ Saliou ci benn la ko bàyyi woon yóbbu na ko ci fukk te it loola loola wa ma shahidna illa ma alimna euh, du ay duur damaa fekk lépp mhm. ndax euh, sëriñ bi bi fi bàyyi ko fii ba ma bàyyi xam naa nañ doon nañ nañ doon doxee ne tool yi tolloon xam naa it ne nit ñi tolloon lu ci ne wax dëgg yàlla dafa fulu lu ci ne dafa fulu léegi ba fi ma taxaw di wax ak yow ay tu tànk yu yu néewi at ñu ngi fii bind kaamil ci daara ji ci ci ci mokkal wu rafet di fi jàng xam-xam di fi jàng xasida ba ràññiku ca kon la sëriñ bi bàyyi woon dara lu ci soppeeku amul lu ci ne daa yokk. te day mel ne dong yi daara ji da leen di dàqal seen kër. moom moom moom kooku ñu sant jaxate wala ñu sant Silla. lim ne juróom-ñetti fukki kilo ak lu teg. bu set bés bu set. juróom-ñetti fukki kilo ak lu teg ak lu teg waaw. <laughs> a ngi euh, waaw waaw euh, ñu ngi koy sóor fii. te suukar si ñëwagul. ak café. ji <laughs> ak cere ji ba tey wenn waxtu wu ñu bàyyi njàng mi du am xëy na nag li sëriñ bi daa wax naan tarbiya ñetti ñetti mbir la mu mel ne kafeeg suukar muy muy muy yar ak liggéey ak jàngale dara da cee mënta manqué waxtu wu ne ñett yooyu lañuy la ñuy àndale bu dee nawet nag tool yi dana tax jàng mi xaw a xaw a xaw a xaw a am tuuti luñ sëdd luñ sédd nawet bi bu nawet bi delloo si it ñu delluwaat ca sédd loolu si njàng mi waaye waxtu bu ne njàng mi mi ngi dox moom waxtu dugub ji nag hmm. lenn lañ ci daal jaay lépp day delluwaat ci dundu dong lépp day delluwaat ci dundu dong yi ba dana wuti leneen def ko ci dana am leneen di ko ci dugal ci li muy bay <laughs> <laughs> lii rekk doy na prudence bamba seen yéene mooy xañ la cadence bamba océan bële ku ñu fa relance ca gabon nga xam ne doo xaadimu rasool yoneen bi mooy sa référence bamba amoo defet yow bay laaj revanche sëñ bamba santati nañ la sa souciance naan ci nee na asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki bokki jullit di bokki taalibe ñu ngi leen di jottali am nuyoo bu jógee ci Serigne Cheikh moom Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad nee na mi ngi ñuy jottali am nuyoo bu bàyyi ci Serigne Cheikh moom sëriñ Saliou. jëm si ci kilifa yi. jëm si ci kilifa yi nga xam ne ñoo jiite mbooloo yi. ak taalibe yëpp. ak taalibe yi ñu àndal yëpp. Serigne bi nee na. sëriñ na Serigne bi nee bi mu wootee ci kilifa yi. bi ñu wootee te woo kilifa yi. yëgal leen ko. yëgal leen liggéey bi. wax leen ni mu ko bëggee. wax ni mu ko bëggee. ñoom ñëpp maase nañ ci. ñoom ñëpp maase nañ ci. yëgal ko seen waa kër. yëgal ko seen waa kër. yëgal ko seen i taalibe. yëgal ko seen i ñoom ñëpp àndandoo ñëw teew si. ñoom ñëpp ñoo àndandoo ñëw teew si. ak taalibe yi nga xam ne. ak taalibe yi nga xam ne. Euh, euh, ndigalu sëriñ bi rek la ñuy déglu. ndigalu sëriñ bi rek la déglu. fu ñu ko déggee. fu ñu ko déggee. danañ bàyyi lépp. danañ bàyyi lépp. ñëw teew si. ñëw teew si. gis na ne ñoom ñëpp teew si nañ. gis na ne ñoom ñëpp teew si nañu. ngir lan. ngir lan. liggéeyal Serigne Touba rek. liggéeyal Serigne Touba rek. loola nag. nee na loolee nag. xolam sedd na ci guy. xolam sedd na ci guy yu. ndax lu mën a am. ndax lu mën a am. taalibe yi liggéeyal Serigne Touba. taalibe yi liggéeyal Serigne Touba. mooy li ko gënal. mooy li ko gënal. taalibe yi liggéeyal Serigne Touba. moo tax mu bay lii mu bay. moo tax mu bay lii mu bay. ndax tool yi kat li muy yaatu yaatu. ndax gis ngeen ni mu sete. gis ngeen ni mu sete. te ay taalibe rek ko defar. te ay taalibe rek ñoo ko defar. te taalibe yi defar liggéey boobu liggéey. te taalibe yi liggéey liggéey boobu. ñoom ñi ngi fi. ñoom ñi ngi fi. mënoon nañ ko àggale. mënoon nañ ko àggale. mënoon nañ ko def ba ni ko sëriñ bi bëggee mu defee ko nii. mënoon nañ koo def ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amee ko noonu. waaye bëgg taalibe yi liggéeyal sëriñ Touba. waaye bëgg taalibe yi nag liggéeyal sëriñ Touba. ci seenu ñaq. ci seenu ñaq ak seen doole. ak seen doole. moo taxoon mu woote ko. moo taxoon mu woote ko. yaatal ko. yaatal ko bëgg kenn ku ne teew ci. bëggoon kenn ku ne teew ci. man fee liggéeyal Serigne Touba. man fee liggéeyal Serigne Touba. te teew ci liggéeyal liggéeyal Serigne Touba. te teew nag ci liggéeyal Serigne Touba. benn njëriñ rek la ci taalibe bi. benn njëriñ rek la am ci taalibe da nga fee teg sa tànk. donte da nga fee teg sa tànk. te dëggoo fi gub. te daggoo fi aw góob léppi woo ko léppi woo ko du tee sa aajo mën naa faju du tee aajo mën a faju rawatina nag rawatina nag kafab léppam aw njaqam aw njaqam léppam léppam ko ci sëriñ bi delloo ko ci sëriñ bi kooka euh, fajo euh, aajoom ju faju kooka aajoom ju faju amul luñ ciy sikki sàkk amuñu luñ ciy sikki sàkka te sëriñ bi bëggal leen loolu te sëriñ bi bëggal ñu loolu yéene leen ko yéene ñu ko te xam ne fii rek la ko mën a jaaree te xam ne fii rek la ko mën a jaaree ba mën a agsi ci yéen ba mën a agsi ci ñun loolu rek a woote moo waral woote bi loolu dong woote bi. waaye gis ngeen ne mbooloo mi fi teew. waaye gis ngeen ne mbooloo mi fi teew. liggéey liggéey bi. liggéey liggéey bi. du dara ci ñoom. du dara ci ñoom. day mel ne am na noon bu ñu doxee woon sax dëgg-dëgg. day mel ne am na noo xam ne sax bu ñu doxee woon dëgg-dëgg. mbooloo mi duñ fi fanaan tey. mbooloo mi duñ fi fanaan tey. waaye nag yaatal gi ba fanaan fi. waaye yaatal gi ba fanaan fi. yokku ji. yokku tuyaaba ji yokku yi. yokku xéewal yi bëgg aaji yëpp faju. bëgg aajo yëpp faju. moom rek ko waral. moom rek moo ko waral. kaddu yii nag. kaddu yii nag. sëñ bi dafa wax ne naa ñëw. sëriñ bi dafa wax na naa ñëw. jottali si ko. jottali si ko. kilifa yi nga xam ne. kilifa yi nga xam ne. ñoom la yónnee woon ci ñoom. ñoom la yónnee woon ci ñoom. wala ñu bind leetar. wala ñu bind ay leetar. wala ñu téléphoné leen. wala ñu téléphoné leen. gis na ne la taxoon mu di ko def. gis na ne la taxoon ñu di ko def. ci soññee liggéeyub Serigne Touba. ci soññee liggéeyub Serigne Touba. gis na ne ñoom ñëpp teew nañ. gis na ne ñoom ñëpp teew nañ. te nam ko bëggee woon. te nam ko bëggee woon. defee nañ ko ni. defee nañ ko ni. mi ngi sant jëwriñ yi. mi ngi sant jëwriñ yi. nga xam ne ñoo jiite liggéey bi. nga xam ne ñoo jiite liggéey bi. ñoo ko doon taxaw. ñoo ko doon taxaw. ba lépp àgg. ba lépp àgg. ndax xam na ne ndax xam na ne. dëkk cib àll. dëkk ci ab àll. fa. yendu fa fanaan fa. fanaan fa te bàyyi sa kër na nga bëggoon mu mel ni mu mel ni te bàyyi sa kër na bëggoon mu mel ni mu mel ni sëñ Touba rek a jar loolu a jar loolu ku dul sëñ Touba ku dul sëñ Touba mënuloo leen koo def loo waaye nag sëriñ Touba kon nag sëriñ Touba lu mu bëgg ci taalibe yi lu mu bëgg ci taalibe yi day yomb day yomb waaye taalibe yi lu ñu bëgg ci sëriñ Touba waaye taalibe yi nag lu ñu bëgg ci sëñ Touba loola day yomb loola day yomb te kon sunu sunu pajog aajo rek kon sunu pajog aajo rek lanu sëriñ bi yéene lanu sëñ bi yéene moo taxoon mu di ko sant moo taxoon mu di ko sant ngir ñu defale ko nii ngir ñu nag ni mu ko bëggee woon. sëriñ bi nag ni ko bëggee woon. amee na ko ni. amee na ko ni. Euh, loolu moo tax mu wax ne. loolu moo tax mu wax ne. nañ leen jottali cant. nañ leen jottali ak cant. jottali leen ngërëm. jot ni sama teewaay bii teewaayu Serigne Saliou bii mooy ab teewaayam mooy moo ko moo ko bëggaloon boppam moo ko bëggaloon waaye ni ko bëggee woon waaye ni ko bëggee woon ci jotade yi jota yi ak xat-xat yi ak xat-xat yi mayewu ko noona mayewu ko noona mu ne mën naa ko fi teewal ci jëmmam mu naa ko fi teewal ci jëmmam ko kàddu yi jottali ko kàddu yi doonte matuñu ko doonte matuñu loola doonte wuñ ko doonte matale tuuti nañ ca doonte ñu génne ci sun kàddu ñu ñu dégg xam ne ci moom la jógee rek buñ ko xam na ci moom la jógee rek. loolu rek moo moo sabab jataay bi. loolu bi. mi ngi nuy ñaanal pajuk aajo. mi ngi ñuy ñaanal pajuk aajo. saahir ak baatin. saahir ak mi ngi ñaanit képp ku fi teg sab tànk. képp ku fi teg sab aajo joo fi andi woon. aajo joo fi andi nga wax jeneen aajo. nga wax jeneen waaye jooja moom sëñ Tuubaa faj ko. waaye jooja moom sëñ Tuubaa faj ko. loolu amu ci lu sikk. te loolu amu ndax la jiitu woon. nee lu meloon nii ca la meloon nii. yëpp. te sëñ Touba xam nañ ne bu lii ñëwaateet. xam nañ ne bu lii ñëwaateet. aajo yi. aajo yi noonu la koy faje noonu rek te aajo ju faju. te aajo ju faju. jar na yendoo dox. jar yendoo fanaan. jar na yendoo fanaan. bari waa na fu waay nekk. bari waay na fu waay nekk. toog fa at. toog weer wala weer wala lu wala lu ko te aaju ju faju rek ko fa bàyyi woon te rek ko fa bàyyi woon te daa mujj toog toog te day mujj toog toog toog toog gis ne aajoom fajuut fajuut mu mujj ko bàyyi mu mujj ko bàyyi dem di wuti leneen dem di wuti leneen foo xam ne si nag boo fa tegee sa tànk xam ne nag boo fa tegee sa tànk wala nga ñàq fa dara wala fa la nga fa façon te bëgg ko la nga fa façon te bëgg ko booy dem yóbbaale ko booy dem yóbbaale ko loolu rek la am loolu mi ngi leen di ñaanal nee na eh, te xam ne du leen fàttali mukk te xam ne du leen fàttali ndax sëñ Tuubaa rek ko ko ñor ndax sëñ rek ko ko te sëñ Tuubaa leen booleeg moom te sëñ di sant lan liggéeyu bépp nag la ñuy sant. du leen sant beneen leen sant bu jëmul ci sëñ Touba. bu jëmul leen sant it. gis ñu sant. defee def nañ ko. defee nañ nam ko bëggee. nam ko bëggee. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. xolam sedd na ko bëggee woon. nam ko bëggee woon. defee woon nañ ko nii. defee woon ko nañ. ndax liggéey bii kat. ndax liggéey ku fi nekk diggante démb tey. ku fi nekk diggante démb tey. da nga xam ni nii nit ñi di liggéey. da nga xam ne nii nit ñi liggéeyee. ci Pastef. ci Pastef. amul ci at yi ci at yi yëpp. ndax kenn ku ne yennoo loo xam ne. ndax kenn ku ne yennoo loo xam ne. ba nekk baykat boo nekkee ab béykat. doonoo ko woon def ci sab tool. doonoo ko woon def ci sab tool. ndax takk takkub dugub. yana ko lu mat ñaari kilomètre. di ko yóbbu. amul kenn koo xam ne. amul kenn koo xam ne. sa bopp jaral na la loolu. sa bopp ko defal. kum doonoon ci sab doo ko nangu. doo ko la doon fayit. kaneen ku la doon fay. ku dul Tuba fayu sëñ Tuba. ku dul fayu a fay. lu mu la mën a fay ko jaral. du la ko jaral loolu nag sëñ bi gis na ko bu baax bi gis na ko bu baax. kon jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. delluwaat. ngeen delluwaat. te ñuy dégluwaat ndigal. te ñuy dégluwaat ndigal. te xam ne murit moom. te xam ne murit moom. ndigal rek lay déglu. ndigal rek lay déglu moom it rek lay jëfee. moom it rek lay jëfee. ne ay rek. fu ndigal ñu daal ne ay ca jëf. ni ko sëriñ bi wootee woon muy doomi xol ci sëriñ bi di ab taalibe ànd ak ay bokkam yépp ak njabootam ñëw ci daara ji nga xam ne naka jekk daaraama woon mu defoon ko muy ab goppam bu muy liggéeyale sëriñ bi liggéey bu fi sëriñ bi woote mu ñëw te ko yéene ànd ak moom sëriñ bi nee na gis na loolu bu baax a baax sëriñ bi nag di wax ne mu delluwaat di tuubalaat boroomam rek di feddliwaat laxasaayam ci sëriñ tubaa xaadimu rasuul di ko ànd ak yéen di got jottali rek kàdduy cant ndax la alxuraan wax def ngeen ko mooy su ñu leen woowee ngir yàlla wuji leen te yàlla tax woo nañ leen ngir yàlla wuy si ngeen yéen ñëpp ngir yàlla sëriñ bi nee na ku jóg ngir yàlla nag yàlla gis na la te ku yàlla gis jërëtut kaneen di la gis ndax gisub yàlla rek moo am solo te moom li muy woote lépp ci yàlla rek la jëm ak yonent bi ak sëriñ Touba amul gëneen bëgg lii ñu wuy si nag yàgg na ko wax day ndabul xiiwal loo xam ne bu sañoon la daloon sëriñ Saaliw rek dal ko mooy la daloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yërmaande rek la ëmbal bokki jullit yëpp moom la ëmbal taalibey sëriñ Touba yëpp moom la ëmbal askan wi yëpp loolu bu tax mu woo leen ci liggéey bii nga xam ne jàpp na ne ku ci wuy si boo ñëwee mën nga fee dajeeg yërmande yàlla nee na yàlla nañu yàlla dajaleeg moom di sant nag bu baax Samuel sëriñ bi nee na mi ngi lay jotalaat ak cant di la ñaanalaat yaag sa njaboot ak say bokk ak say xarit ak ñi la wuy si ñëpp li nga tànn ba def daara jii muy sa daara yàlla nga ci daje ak tawféexi sëriñ bi te loolu mooy li nga xam ne moo am njariñ soo ko amee am lépp ñu yalwaanaat nag ci bokki jullit yëpp nañ ko ñaanal jëmmam ji suñu borom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram lool te dolli kàttanam ndax sagub lislaam la waaye ab ñag la ci yoon wi lépp lu mu yéenee liggéeyal Serigne tubaa murit yëpp war nañoo maase ñaan yàlla liggéey boobee yàlla na ko àggale ci sagoom yàlla na ko àggale ci ak tal yàlla na ko yaa àggale ci ak man wuutu na ñu bari li muy def fardul kifaaya la lu waroon ñëpp tam wuutu leen fi te kenn déggut mu jàmbat kenn déggut mu wonk ngor ak jom aku rek la ko yore kon nag war nañoo ñaan yàlla yal na ko yàlla téeñalal boppam jàppaleen ko boppam ba liggéey mu àggale ko fu kawe njottam ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf yéen ñëpp man ngeen a maase nangu ñaan sëriñ bi nee jigéen ñi gis na leen nee na yéen it ngi leen di sant bu baax ci seenu taxawaay gis na leen bu baax jëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jërëjëf sëriñ Bamba jaajëfe Xaadimu Rasuul jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jërëjëf sëriñ bamba jaajëfe xaadimu rasool cheikh bamba yaay sunu assurance bamba say ndimbal raw ay finance jërëjëf euh, bokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñoon di ñu seetaan jërëjëf euh, bokki taalibé yi murit yi Eh, jërëjëf mbokk yi nga xamante ni bii ñoo àndoon ak ñoon ci liggéey bi nga xam ne moo di liggéeyu Lagane eh, mbokk yi muy liggéey boo xam ne Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou woote woon na ko ngeen jot a gis eh, li nga xam ne moo di jaag bi nga xam ne jaag nañ ko muy dugub bi saaño noonu ma leen ko waxee woon rek sànq ci euh, wax ji ne saaño li ko wutale ak euh, suuna euh, différence bu ndaw lañ am waaye nag dugub ji dafa gën a néew suukar waaye dafa gën a gudd ci nu muy ñor ci nawet bi loolu taxoon ñu bari daw ko waaye moo gën a sakkan ci wàllu sunguf ñaareel bi itam moo gën a mën a mucc ci picc picc yebu ko ba mën koo lekk xanaa am ti koon lu ko war a mën a lekk mooy lu mel ne ay xarageen neen wala ay gunóor loolu mooy li ko gën a yàpp loolu nag Serigne saaliwu musta jóg ci dañ di ko bay fii ci tool yi di lagan waaye ginnaaw Serigne Saliou itam Serigne Cheikh wéyal liggéey boobu di ko fi di ko fi def eh, jot mbokk yi woote bi yaakaar naa yaatu woon na waaye gis ngeen ñi nga xam ne ñoo wuy si ñëpp mu de ay taalibe loolu nag li may tegtale ne wàllu économie réewum Sénégal ak développement buñ ko doon wër ci sëñ Touba rek lañ koy mën a fekk ndax lii ñu leen wan ngeen di ko topp ca euh, koom muy daara yi Touba xelkoom daara yi daaru Xudóos daara yi daaru Salaam daara yi daaru Mohin daara yi daaru Sakkoor daaru Sakkoor fenn fu nekk fekk ngeen fa jàg bu tol nii te jenn daara moo ko béy kooku ki leen di dundal yor seen wér-gu-yaram yor seen koddaay yor seen lépp moo di sëriñ Cheikh mu sëriñ Saaliwu waaye bokk yi toppoon ngeen ma ci Maodo Murit muy Touba Daaru Salaam gis ngeen itam liggéey bañ fa liggéey lafa nekk ci mbooloo itam xaw naa ñaar ca li nekk fii ci eh, Lagan ci mbooloo ñoom it gis ngeen fa jàg bu toll nii ñooñu ki ko liggéey moo di Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mbokk yi tey ñoo ngi lagan gis ngeen mbooloo mi fi wuy si woon gis ngeen itam liggéey bi ñu fi liggéey Serigne Cheikh rek moo ko liggéey loolu di kenn ci yoonu murit te boo leen doon woor mbooloo lay doon mu ti ci biir yoon wi moo xam ne la leen Serigne Touba jàngaloon mooy jaamu yàlla ak liggéey loolu ci lañ nekk kon yaakaar naa ne mbokk yi eh, développement wala économie bu réewum Sénégal suñ koy wax bu fekkente ne bi cent la quatre vingt dix cinq pour cent ya Serigne Touba mooy ki nga xamante ne bi moo ko produit eh, jaag bii ngeen gis nga xam ne boo ko doon xool dana war a mat eh, tuutee koy manqué cent mètres yaatuwaay bi dana war a jege dix mètres loolu ay bopp ñoo ko yanu te tool bi boo ko doon xool dana mat un kilomètre cinq cent nga xam ne amu ci leen loo xam ne oto ko indi ay gone yu jigéen yu tuuti ñoo ko doon yanu ak ay mag yoo xam ne dañuy romb soixante-dix ans yanoo ko ca bopp tool ba dox un kilomètre nangam dikk yennee ko doo tayal da ngay delluwaat dem yanu juwaat loolu mooy pas-pas ndax bu doon physiquement nit ñi dañuy tayal waaye pas-pas mooy li nga xam ne du tayal waxtu wu ne day gën di yees di gën di baax di gën di rafet ci Serigne Touba loolu mooy li nga xam te moom moo taxoon Serigne bi jóg Serigne Saliou wut suñu borom defal ko ndam lu rëy te ndam mooy li Serigne Cheikh donn mooy liggéeyal yàlla ci ndaw ñi mooy njëkkante ak saytaan santaane ci ndaw ñi def ci ñoom yàlla def ci ñoom li sëriñ Cheikh moo tax boo ñëwee ci tool yi ndaw yi rek nga fiy fekk ñu a sa morom ci liggéeyub sëriñ bi ñoo xamante ni bii kat xamuñu woon sax ay tool bay xam am ngóob xamuñu woon ay tool bay xam lippi xamuñu woon ay tool bay xam jaag léegi xale yi xam nañ lippi xam nañ suuna xam nañ li ci aju lépp ci loolu grâce au sëriñ Saliou Mbacke yàlla nañ ko yàlla fayal eh, boo xoolee itam mbooloo mi fu ne bàyyi nañ fi am nañu bàyyi Casamance am na ñu bàyyi ko euh, Gàmbi am na ñu bàyyi ko euh, Louga am na ñu bàyyi ko Ndar am na ñu bàyyi ko fu ne daje si fi loolu mooy euh, li Serigne Saliou doon bëgg mooy mbooloo mi daje fi xamante fi bu ñu fi xamante ba noppi ñu seqante fi ay wëllëre su ko defee bu ëllëg si biir loolu mën wax alquran wax ne innaa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda llaahi atqaakum maa leen def ay góor ak i jigéen leen ay xeet waaye nag su ma leen dajalee damaa bëgg ngeen xamante su ngeen xamante ba noppi nag ngeen toqente ci ragal yàlla ak liggéeyal yàlla loolu yaakaar na ne moom la Serigne Cheikh woote woon kon seen mbokkum taalibe Fallou Gala Syll fii ci eh, Lagane moo àndoon ak yéen ñi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.